mu mu dëbb la kàttan te wéral la ba li nga bëgg si nga def ko sëñ bi ni ko bëggee loolu daal sëñ bi li nga ci te moo ne ci yëpp nag moo ne ci Baye Fall yëpp suñu sanga fu nekk fekk nga ñu fa waaw ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm jërëjëf Mbacke kàddu laa doon naa ko wax waaye maa ngi tudd jéggi lu baax nag Mbacke jërëjëf te sëriñ bi sa waajur wa daa am fu mu ko tegoon yaakaar naa am na jàllat boo xam ne mi ci biir Sëñ Abdou Khadir moom moo ko joxoon ak lu mel ne ay course rek am na am na fu mu féete woon ak moom te jàpp gu mu ko jàppoon waaw te loolu lépp nag waaw te lépp nag sëñ bas da ko yeesal feddali ko téye ko waaw sëñ bas daal dañ koy bàyyi sëriñ Tuubaa rek waaw moom ndax sëñ Tuubaa lay liggéeyal bu ko sëñ Tuubaa fay nag dana ruus waaw ndax li fi mu nekk daa métti daa métti waaye moom bu lay liggéeyaloo faa mu métti waaye waaye sama am dana la a baax la loolu loolu moom la koy ñaanal ndax sëñ Tuubaa boo ko liggéeyal fay la te liggéeyal nga sëñ Tuubaa jërëjëf Mbàkke jërëjëf mooy kon bis boo xam ne bisu taalibe sëñ Tuubaa yëpp la ndax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 di xalifa sëñ Mourou Moustapha te sëñ Mourou Moustapha taxawaayam ci yoon wi ñëpp xam ne ku ko fekkewutit dégg nga ko dégg na ko ci doomi Serigne Touba yëpp ci diir mu fi nekk ku ci mas a yitte rek sa xel moom lañ jëkk daj ngir taxawaayam yitteem ci ñoom noonu la leen taxawoon ta amu ci kenn ku muy ràññeele koo ci xool liggéey moom mu wax la ko rek da ngay jàpp ne kooku la gën a bëgg ci ka ca des sëñ bi ko bëggoon lool yaakaar naa ñoom ñi xam nañ ci dara ku gis rek.